سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل السلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu ngi fii ci euh, jumaay Masaalikul Jinaan ci seen euh, émission waajal màggal euh, ci seen rubrique bi ñuy wax xamle yoon wi ñu ngi toog ak Cheikh Ahmadou Mbacké Cheikh Ahmad Bamba Mbacké Muntaxa di doom ci xalif général des Mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke kon dañ koy jox mu daal di nuyoo sëriñ bisimilah. ok bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sama mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu lu bëree bëri di am mbégte ci ci laaj ci ci toog ak yéen waaw ci toog ci toog ak yéen ak waxtaan Mbacke euh, ñi ngi ci weeru safar ku ne weeru safar di nga wax 18 safar te ku wax 18 safar di nga tudd màggalug Touba léegi nag màggalug Touba it kenn mënu koo tudd te tuddul li nga xam ne mooy euh, Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba te it Serigne Touba ku tudd di nga tudd yoonu Mouride moo tax comme dañuy xam la yoon wi la li ci njëkk mooy ñu bëggoon xam rek maanaam yoonu Mouride nga wax ñu li ñu mën a wax ci yoonu Mouride mooy lan. <coughs> waaw euh, waaw laaj bi nga laaj mooy yoonu Mouride mooy yoonu murit dañuy moom ma dañuy wax ne mooy eh, yoonu lislaam la lislaam la ah, dara génn ci lislaam ndax ah, Sëriñ Tuubaa da ngay dégg mu naan bil Mustafa nawaytu maa yu yaddidu sun sunnatahul xarra wa inni ahmadu damaa yéene yeesal eh, sunna si Yonent bi ah, yoonu murit nag li ko li ko jur mooy xaj na jamono bi eh, Seex Ahmadu Xadim di feeñ xaj na fekk na jamono ko Ah, eh, eh, doo yu bari fi mm. ba ba ba réew mi soppiku mm. ah, diina ji itam diina dafa am ruux loo xam ne mooy ruux gi dëgg-dëgg nga xam ne boo dee boo dee julli ku ne xam ne boo julli te te yéene woo amul amul kii ku xam ne boo dee julli te selloo amul julli ku ne xam ne boo dee aj te te sa se sa yéene sellut amul aj mm. waaw doo fekk jamono yàqu pas-pas yàqu ba nga xam ne eh, li ci ëpp li ñuy def li ci ëpp defatuñ ko ngir yàlla benn dañ koy def am na ñoo xam sax dañuy jàng waaye dañ ko wut daraja mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa nga far la ngay ngay àtte mbaa nga jege mën a jege buri bi mën a amalal mbaa sax nga jàng jàng jàng alxuraan di ko tariyaaxe nga xam ne jàng ko ngir ngir xam jëfe li nga xam ne moo tax alxuraan jóg waaye da koy jàng sax ngir def ko eh, di ko tar di ko di ko tariyaaxe waaw ak mel noonu kon eh, kon détourné woon nañ eh, islam di ko taxoon a jóg waaw kon nag ñëw ngir yeesal diine rek moo ko taxoon moo ko taxoon a jóg maanaam delloo ko ci cosaan la hmm. waaw ndax ku ne xam na ne cosaanul jaamu yàlla may nga jaamu yàlla sellal ko ibaadatullahi wahdahu la sharika lahu waaw bi xeyri ishraak waaw waaw loolu loolu moo taxoon ak itam delloowaat nit ñi ci jikko yu rafet innamaa bu'istu li utammima makaarimal axlaaq loolu hadiis bu wér la boo xam ne ko kon loolu moo taxoon moo moo taxoon Sëñ Tuubaa woote fekk nit nekk ci xaw a jàddu yoon yi mu leen kaay leen nii la damaa bëgg ñu ànd sellal sellal suñuy pas-pas ji yittewoo ngërëmul yàlla yittewoo jëm ci yàlla muy iraadatullaahi wax dëgg wala iraadatullaahi iraadatu wacillaahi wala looy def nga di ko def te yàlla tax loo am man koo joxe te yàlla rek tax mën ngaa seet ni di ko liggéeyal eh, te yàlla rek tax buñ bëggee waxtaan ci kan mooy kan mooy Serigne Touba si Ahmad Bamba dana mënal li ñu waxoon léegi ah, ndax eh, li ñu waxoon mooy maanaam yi eh, maanaam moom nag mooy mooy nekk Serigne Touba Serigne Touba dafa dafa feeñ yàlla yàlla te ndax yàlla nag wala mm, yàlla yàlla daal day jëfe di jox ko neex ngëneelam waaye suñ tubaab dafa feeñ rek yàlla baaxal ko xeer ko ci boppam mu teel a bëgg yàlla teel teel jublu yàlla nga xam dañuy wax ne ay waajuram moom ay waajuram am nañ solo nag ndax ay waajuram muy muy muy muy muy waajuram Mariam Bousso ma di maam Jaara di di maam Anta Sall ñoom yëpp ci kër diir lañ yaroo kër diir lañ jànge waaw waaw waaw um, um, um, ñu nañ ko namputal ci diine waaw waa ndax ndax daanañ ko nettali ay xisa xam nga nettali lu am solo ma nettali xisab ku waaju baax lu am solo waaw waajuram daana ko nettali naa ko bokk na ci aaday gaa yi baax yi day bu bu bu guddee ngay julli waaw daa daa dégg ma di ko wax Sëñ Tuubaa te daan def léeg-léeg bu bu demee ba te ba tëdd mu taxaw fële di di di jaamu Yàlla te booba tàmbalee gud dalagul alxuraan waaw nga xam ne kon maanaam eh, am waajur yu baax ñu ñu teg la ci yoon teel laa nammatal ci lu baax tam lu am solo mu doon ko teel a kon jublu jublu yàlla suñu borom bi mu demee war a jàng mu jàng def ci pëstéef amutoon soxla ci lenn lu dul jàng maanaam teel a mokkal alxuraan jublu ci jàng xam-xam xam-xam yi diineem jàng ko bi mu ko jàngee yàlla ubbi ko ci mu teel a tàmbali di di taalif seet téere yi nga xam dañu ko daan jàng mu teel ko mu mu jël ko di ko di ko wayaat wayu yomb yu neex yu neex a mokkal ñu ba waajuram suñu Mor Anta Sali ñu ko jur jël téere yooyu di ko jàngale ci biir daara ji muy lu mel ne jëfar nafis ak ak ak ak ak ak yësbatu saxaar ak yeneen ak ak ak yeneen ak yeneen waaw kon kooku mooy mooy mooy mooy mooy Serigne Touba bi mu demee rek bi mu nekk ak waajuram nekk nekk gu rafet euh, yoral ko daara ji di ko jàngaleel euh, jamono ji xat lool ab téere sax bu ko bëggee léeg-léeg day bind ab kaamil weccu ko ngir mën cee jënd ay téere xam-xam yi muy yi muy jànge lu ci des mu jox ko waajuram nga xam ne waajuram nee na xam lu masaan ñëw ci moom rek. ndax nit ñi dañ koo a bëgg ndax mën a a mën a bind géej yu mel noonu di ko bind loo ko def yooyu mel noonu di ko jox xaalis waaye waaye lu si na ko ne loo masaan loo masaan mu am ko xam naa ne ci man la jëm si salaamaaleykum